conseil des ministres bi ñu weesu adopté nañ benn décret bu ñee la loi ci tabac mu doon ab projet de loi bu ñee la jaay ak jëfandikoo cigarette l'ISTAB di ligue sénégalaise de lutte contre le di ko ñaawlu bu baax bu ñu sukkandikoo ci moom amul kenn ci ay membres am koo xam ni boole nañ ko ci bi ñuy taxawal bile projet. parce que ñu ne naka la décret mënee jàll te duñ ci impliqué ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs. acteur yi mooy ñan acteurs yi mooy ministère de la santé mooy programme national de lutte contre le tabac mooy société civile d'une manière générale donc texte mënul jàll te ñooñu ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci loolu vraiment kenn impliqué leen ci listab di wax ni xamul lu wundu bi le décret yi waaye mu njorti ni dafa bëgg a def promotion li nga xam ne moo di cigarette électronique yi euh, décret bii ñu jël lan lañ ci jublu moom mooy euh, autoriser nit ñi di indi cigarette électronique fii ci Sénégal parce que bu ñu autorisé cigarette électronique rek nit mun na jël ndoxu euh, nu mu tudd yàmba def ko ci biir di ko toox ci kanam policier wala ci kanam gendarmerie te duñ ci mën dara boo leen wax ñu ne cigarette électronique la ñuy dañuy utiliser. ci loolu ñuy joxoñ baram tuuma ministère bi yor wàllu wér gu yaram ak programme de lutte contre le tabac. donc loolu jaaxal ñu ñu euh, sollicite ñu demander à avoir des explications. ñu ne loolu mënul nekk naka la ministre de la santé dem di en conseil des ministres di porter benn te programme national de lutte contre tabac yëgu ko loolu mënul nekk fexe nañ nag fexe def lu nekk pour am texte boobu mais mënuñu fexe ba jot texte boobu. listab jàpp ni bile décret nekk lu baax ci li nga xam ne moo di xale yi. et cigarette yooyu noonu du mag ñi ñoom ñoo koy utiliser mais xale yi ñoom ñoo koy utiliser parce que boo ko xoolee dafa mel ni jumtuwaay yu bees yi léegi ñuy gis ci ci ci jamono te jumtuwaay yu bees yooyu noonu xale yi ñoom ñoo ci ëpp lu koy utiliser ba gis ko sax ci biir ci biir école Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac jàpp ni bile projet de loi day neenal bépp effort boo xam ne defoon nañ ko ci xeex li nga xam ni moo di cigarette ay at a ngi nii ci loolu ñu yónnee bataaxal gouvernement bu Sénégal ngir bile projet ñu dindi ko ci ni mu gën a gaawee.